def suñu kàddu yi fekk leen yéen ñépp ci jàmm waaye muy kàddu yi yoo xam ne ñun ñëpp dañ ciy bokk rek di fàttalante ak nafar yenn walla lenn ci bind yi nga xam ni jaadu nañu jàngat ko ci suñu diine ndax nag euh, diine ji moom bàyyiwul dara ah comme niñ ko xamee rek mawdu bi nga xam ne moom lañu tànn mu aju ci namaazij min al mushkilaat zawjiya wa xululuha mu mel ni kon bu ñu jéemee tënku ci thème bi ci mooy wone rekk yenn exemple yenn doxalin jafe-jafe la ci biir néegu sëy ak yenn solution moo ci mën a am amaana loolu ci sunu xalaat dañu ko tëggaat neneen te mooy asbaabul mashakil zawjiya wa xululuha fi islam muy jafe-jafe yi nekk ci biir néegu sëy lu koy waral ak yan ñoo koy saafara waaye saafara goo xam ne ci islam lañ koy jëlee mu mel ni bu ñu bëggee waxtaanee loolu danañ jéem tënk ko ci juróomi tomb bi ci njëkk mooy al mashakilu zawjiya zawjiya xatarun yuhaddidu nizam al usra wal moo di ni problème yi nga xam ne néegu sëy yi dañ koy am danger la buy day yàq doxalin bi nga xam ne noonu la famille war a doxee ak société ñaareel bi muy asbabul mashakil zawjiya awil mushkilat zawjiya maanaam lan moo waral problème bi am ci néegu sëy ñetteel bi di adrarul mushkilat zawjiya lor yi mën nekk ci problème yi am ci biir néegu sëy ñeenteel bi di al mushkilat az-zawjiyya wa xululuha fi islam te mooy rekk lu njëkk luñ ciy tudd problème yi nga xam ne xañ na mooy nekk ci biir néegu sëy yan ñooy yi nga xam ne ñooy saafara yi ci islam juróomeel bi muy ah benn tawsiya wala nasiha bu fekkee mën nañ ko jox kenn sax rek mu aju ci ah, néegu sëy mu mel ni tomb bi mbokk yi dafa am solo suñu ñëwee ci al mashakilu zawjiya xatarun yuhaddidu nizam al usta wal mujtama mu di problème yi nekk ci biir néegu sëy danger la bu dafay yàq doxalin bi nga xam ne la njaboot gi war a dox muy famille bi ak société bi ku nekk xam na ni taqaloo ak jàppalante bi nekk ci sëy dafa nekk lu dëgëra dëgër waaye dafa nekk tam luy dëgëral bu baax relation sociale yi am ak ci diine boo ko doon natt ci anam yépp maanaam fu sëy yi dëgëree àndin doxalin yi dëgër waaye tamit diine ji tam jàppalante baag nañ cay dundee mën a dëgër ndax dafay loo xam ni moom sëy ak relation yooyu di dox ci diggante nit ñi dafay melal ne mooy kennu maanaam sëy mooy kennu famille waaye mooy pilier bi nga xam ne tam mooy bii jiitu pour société mën a dëgër waaye ci sëy tam la xeet wi yépp nag mën a defaroo waaye ci la mën a yàqu ci biir loolu kon ñu ne problème yi nekk ci biir néegu sëy bokk na ci li nga xam ne mën na yàq tabax boobu bokk na tamit ci gàllankoor yi nga xam ni ci wàll li war a tabax société islamique dana nekk lu koy yëngal ba ca reen ya nga xam ne dafa waroon a mucc relation ya waroon a dëgër ak kenn ya yëpp su sëy bi yëngatoo rek am problème yooyu yëpp day daal di yëngatu ci société bi moo tax tasaaroo gi nga xam ne problème mu sëy yi dañ koy tasaaroo tey ci sunu jamono dafa tiitlu dafa raglu dafa nekk tamit mbir moo xam ne feeñ na lool ci société yi bi ñuy dund rawatina waaye saa yoo xoolee ak nu mu mën a mel la ko waral léeg-léeg mën na nekk lu tuuti waaye tuuta ñaay booba dañ koy xeeb mu mujj yàq relation wu famille ba ndax ndànk ndànk la koy e, dugg ñu koy xeeb ba mu mujj yegg foo xam ne walla yaas billah dafay daal di nekk lu rëy rëy rëy ci yàq waaye ci tasaare famille ba ci tasaare njaboot ga waaye tamit ci yàq tabax boobu yëpp nga xam ne nag mooy tabaxu famille ak tabaxu société foofa nag bu boobaa ci la crise bu bon bi am bu mag ba te mooy fase ndax su sëy baaxatul relation ya rafetatul àndin ba jekkatul bu boobaa da ngay gis ne lañ doon bañ muy tàqalikoo daa day daal di taxaw te léeg-léeg nag man nga ni lu ñu mën a jàppee mu waroon a mën a nekk solution doon na war a mën a yomb ci kanamu nit ñi nga xam ne ñoo ko séq muy ñaar ñiy dencante muy ñi leen séq ci famille bi doon na mën a yomb lool ci sunu diine ak islaam ji ñu bokk waaye ñëpp dañuy mel ni ñu silmaxa ñoo xam ne gisuñ yoon wa dañuy gëlëm ñu mel ni ñuy tëñëx tëñëxi jëm ci loo xam ni amul jàmm amul yiw loolu moo tax bokk na ci problème yi nga xam ne maanaam problème mu sëy yi ak mboolem problème bu mu mën a doon rek daanaka lu tuuti moo ko sos mu nekk loo xam ne ci benn wàll lay jóge ko mu xañ ko moroom ma mën na nekk lu jóge ko ci ku góor ki mu xañ ko jigéen ji muy lu tuuti waaye ñu koy yar ba mu màgg wala mu jóge ko ci jigéen ji mu xañ ko góor gi ñu koy yar ba mu ba màgg loolu moo tax nag pax moomu ak lu tuuti loolu ñuy xeeb seytaane moom lay ëf ba mu nekk lu rëy a rëy mu gonfale ko ci xolu képp koo xam ne mooy diggante ñaari way dencante yi amaana ki ko jëf xeeboon na ko waaye seytaane moom dina ko gonflé ba day mujj nag nekk lu rëy rëy rëy yegg nag ci foo xam ne day sori lool waaye day yegg tamit ci jamono boo xam ni euh, pour nga deltuwaat ginnaaw boo moytuwul day wees lay ñëw rek te yàqu-yàqu lay doon mooy tàqalikoo te tàqalikoo tam gis nañ lor yi nga xam ne moom lay jur ba tax ci biir loolu ñu ñëw pour andi yan mbir mooy yi nga xam ne mën nañ ko teg sunu loxo ne mën na cee sosoo problème yooyu ak lor yi nga xam ne moo lay jur waaye ak solution yi nga xam ne tam moom la islam andi suñ ñëwee ci asbaabul mushkilaati zawjiya yan mooy yi nga xam ne moo waral sëy yi di am jafe-jafe am na ay mbir yu bare bari yu bokk yoo xam ne mën nañ leen a wax ne ah, day tax relation wu ñaar ñiy dencante di am problème waaye amaana yi ci ëpp solo rek lañuy ñuy mën a tudd ndax euh, loola duñu mën a lim lépp waaye yañ cay tudd dana mën a am lum ci yóbbaale waaye bu ñu yeboo wax ne li ëpp solo nag ci yooya nga xam ne mooy jur tàqalikoo bi ah mu ngi juddoo ci sori goo xam ne nit ñi wala ñaari way dencante yi danañ ko sori ki nga xam ne mooy borom bi subhanahu wa taala ak ñàkk a sàmm yi nga xam ne moom la ñu yàlla sàmmloo ci biir néegu sëy bi te loolu ci ñaan ñëpp lay bàyyeekoo kon albadu an illahi subhanahu wa taala wa adamu muraatihi fi lxayaati alzawjiya bayna altarafayn càggante googu nag ñuy sàggane yàlla ci biir néegu sëy bi تي ko bari na lu muy doon sabab ci li nga xam ne mooy yàq sëy mën nañ ca nag rax loo xam ne day aju ci ñàkk taxawee lu aju ci dundinu économie bi wala alal ja war a dox ca biir sëy ba ci dundal baak yor ba ak dépense ba waaye mën nga ne li gën a rëy daal nga xam ne lépp buñ ko doon dëxëñ di ko tënk day delluwaat ci sori yàlla gi ñu soril yàlla sunu néegu sëy yi waaye la cay mën a dolleeku amaana day delluwaat ci alal ja te même loolu tamit mën nga ni ba tey sori yàlla ja la ndax boroom bi wax nañu nañu war a yore njaboot yi ca alal ja leen di téye ak dépense ya war kon ci tënk mën nañ wax ni sunuy jéem tënk asbaab yi muy yi ko waral ci ay tomb bi njëkk dañuy wax ne mooy adamu muraaati alxuquq wal waajibaat bi ma yurdillah bayna bayna zawjayn mooy ñàkk sàmm àq yi nga xam ne moom war ak wareef yi nga xam ne kenn ku ne mën nga ko yoreel sa moroom ñàkk giñ koy ñàkk sàmm ci anam bi ko yàlla gërëmee ak nim ko santaane ci diggante ñaari way dencante yi léegi day mel ni àq yi ñoom ñoo koy tegal seen bopp rek wala ku ne dafa am noo koy gisee bu fekkee ci ku góor ki la léegi léeg mën na caa ëppal du xam lu mu moom ak lu jab soxna si moom léeg-léeg tamit jigéen ji mën naa sàggan du xam tamit lan la warloog borom këram ak lan la boroom këram warloog moom ñaareel bi mooy al ibtiaadu an al manhaj al islami al misali fi xalli al mushkilat al zawjiya mooy sori gu ñu sori doxalinu islam bi nga xam ne model la façon bi ñu islam andil ci ne bu ñuy régler problème mu sëy nii lañ ko war a régler nga xam ne borom bi subhanahu wa jàngal na góor ñi jàngal na jigéen ñi xamal ne bu problème amee ci biir néegu sëy problème booba dañ koy delloowaat borom bi subhanahu wa taala te mooy fexe ba ah ut ay yoon te ne ko yàlla subhanahu wa santaane muy yedd ak waar kom nam ko waxee woon fa'izuhunna da dangeen waar jigéen ñi yedd leen bu ngeen gisee ci ñoom lu leen jaaxal mu teg ca wahjuruhunna na ngeen leen gàddaay ca néeg ba du sax nag ca bitti waaye na suñu téye itam na ngeen leen dóor dóor boo xam ne tam du damm yax ah yooyu yëpp nag di ay yoon borom bi subhanahu wa taala rëddal ñu ko ngir bëgg rekk ay matuwaay yu ñuy jël ba bu ñu demoon sax ba fase war a am mu tegal ñu idda mooy lu jigéen bi di toog ci ay diiri weer léeg-léeg sax nag mën naa dem ba ci juróom-ñeenti weer ndax jigéen ji nga wàcc mu lon mu wonn lor ah bu fekkee ca weer woowu mooy weer bi mu njëkk a jël rek boo moytu dina fa toog juróom-ñeenti weer yoo xam ne ca da lay ne ndax bata mu imbee waaye dana dem ba yegg ci ñeenti weer yu teg ci ñi jël règle ndax seeni ñetti règle ak seeni set wala sax nag ñu natt ko ci ñetti weer yu mat sëkk ci ñi nga xam ne mataguñu gis règle wala gis nañ règle ba mën war maanaam mënatuñ koo gis yooyu yëpp di àpp boo xam ne bu ci góor waccee am sàmm ko mu toog ci biir kër gi te du génn ñàkk génn googu muy ñàkk génn kër gi amaana soppeeku mën na caa am ci doxalin ci seen diggante ba ñu mën a delluwaat dara bañ a yàqu nga gis ne borom bi subhanahu wa taala loolu yëpp tënkal nag ñu ko soo demee ci suratu talaq mu xamal ñu ne ah jigéen day su fekkee ne da ngeen leen a wàcc seeni idda nii ngeen ko war a jàppee mu mel ni ci biir loolu tam al awzu wal wal mushkilat al iqtisadiya wa qillat dhat al yad fi al infaq ala al usra bokk na ci lii sabab ànd boobu tam di yàqu di andi problème mooy ak ñàkk goo xam ne dafay feeñ ci problème mu économie ndax néewu am-am bi nga xam ne ki war a joxe dépense mën na ko néew war a bokk man-man ba mu war a def ci njabootam mu nasax loolu nag léeg-léeg mën na jëm ci ñàkk am ñàkk man waaye léeg-léeg mën na dem ci anam boo xam ne daanaka boo koy xool dafay nekk rek ci gàttañlu ndax am na góor ñoo xam ne dañuy faral a gàttañlu ca nañu war a yore yoree seeni njaboot jàpp ne ah luñ def rek ak nu ñu manee loola doy na te nag responsabilité la ndax wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil maaruf góor moo war a yor njabootam bokk na ci sabab ya موي عدم تحمل ضغوط الحياة بشكل يومي مستمر مما يقود إلى الغضب والانفعال السريع والذي قد يقود أحيانا إلى الضرب والعنف موي منا سيبورتي اك ينو خط خط دوندين بيغا خامني دانك ني نك موما نيك بيسبو ني موي لو خامني سوكو ميتريزي وول moo xam ci côté ku jigéen ci la wala waaye rawatina ci côté ku góor ki jafe-jafe jamono xam ne dafa wër daanaka wet gu nekk dañ koy daj bu nu ko maîtriser wul xam ni ñuy dundeek moom loolu nga xam ne mën na pousser ku góor ki wa ak ku jigéen ki yépp muy ñaan ñi dencante ci mer ci jàppante gu gaaw ku nekk la lay dal ak la ngay yëg ci xat-xat nga jàpp ne sa moroom moo la ko teg lolu man na dem sax ba yegg ci xex yegg ci dóor yegg ci jëflante yu metti ak jëflante yu tar comme ni nga xamé tam ah bokku na ci asbab ya liko waral muy inshigal ay taraf min al akhar an taraf al axar wa qillat التواصل والنقاش الفعال kon inchigaalu ay tarafin min a yi bu ñu gisee càggante léeg-léeg kenn ci ñaar ñi dencante bañ a ittewoo moroom ma ñàkk am relation ak échange buy am ak di discuter yu yi dox ci seen diggante ñu koy waxtaane daal ñàkk waxtaan ñàkk waxtaan baaxul góor bum xeet xalaatu soxnaam ndax nag jigéen ku am xalaat la ku ami pexe la waaye jigéen moom rawatina ëpp na muy dugg ci mbir ak di def ak dindi lu boroom këram yëgul bal sax nag dafa neex lool di bokk waxtaan di diisoo di teg ay pexe ci lu aju ci seen dund ak lu koy jëmale kanam seen dundi njaboot seeni mbokk waxtaan boobu dafa am solo ndax amaana nit ki bu xamee ca la nga nekk ak fa nga jëm dana la ca jàppale waaye su ko nëbbu mu réer la loolu tamit problème la boo xam ne dañ koy yëg ci dundinu way dencante yi bokk na ca beneen bi mooy su idarati siraati wa taamul ma al azamati wa samaahi laha bitasaawud muy ñaaw gu ñu ñaaw ni ñuy doxalee ku werante yeeg jàppante yi ndax nag ànd boo gis rek loolu du ci ñàkk toujours du ne rek kenn ku ne da ngay mën a déggook sa moroom ci jamono yu ne mais bu werante amee bu xëccoo amee crise bu amee ci biir néegu sëy bi nuñ koy doxalee nuñ ciy waxtaanee nuñ ciy euh, jàppalantee waaye ni ñuy balante ba kenn ku ne am esprit de dépassement xam ne sa moroom nga koy utal ngànt bu ñëwee def njuumte nga man koo jëllale man koo comprendre su mer ma giifee nga fàtte yooyu yëpp nag léeg-léeg dañ cay sàggan ñaari woy dence yi bokk na ca lay jur tamit jafe-jafe yi ci biir néegu sëy muy imtu làkk na za ima wa mutashaalima wa salbiya an il xayaat wa tasarufatihim mooy nit ki am benn gis-gis rek boo xam ne dafa dëgër dafa dafa nekk loo xam ne moom gis-gis la bu bu bu boo xam ne daanaka du ca yem waaye dafay nekk sax loo xam ne digganteem ak dundin gi ak nit ñi ak seeni doxalin moom dafay jaar na le nit ñi dañuy jaar ni moom mu jaar na le te nag da cay yegg foo xam ne du ca déggoo kenn du nangoo déglu kenn du nangoo faale kenn lum ne nii la rek ni naan lu mu màtt rek dina ko dagg loolu tam dafay yàq ànd rawatina diggante ñaari woy dencante yi amaana bu fekkee kenn ci ñoom ñaar am na melokaan bu mel noonu rek ki ci des faawu mu loru day mujj des di muñ lu mu xam ne du xam fu muy yem waaw mu nekk rek ci dundin woo xam ne dana xam ne lii moom amu ci benn pexe te nag sëy loola baaxu ci yooyu mooy jékki-jékki rek platé wu ku nekk naan lii nii kenn bettul kenn beneen ba ca wàllu asbaab yi muy li waral problème yi di am attamassuku bir ra'yi mahma kanat an-natija wa adamu tanazul ayyin min at-tarafayni والذي قد يرجع إلى العداد والاختلاف الثقافة بين الزوجين أو الاختلاف الثقافة بين الزوجين وكذا اختلاف النظر إلى الأمور موي موي رك سا خلات اك نو ريزولتا يو دال من دال لي ني لي لا بغ ني لاي ديمي سما يون نيكوت لولو غور dëgëraayam ak cëram ak sañ ak kilifteefam may na ko mu war a am loo xam ne bu fa yeggee danaan nag lii la ñu doxal loolu waaye loolu yépp tamit na xam ni xalaat ba suñ ko ci joxee beneen bu gën du tax nag mu ne rekk ma comme maay kilifa gi sama xalaat rek ak li ma de mooy wéy ñàkk deltu ginnaaw goo xam ne day juddoo ci diggante ñaar ñi dencante bu kenn ku ne la nga màtt di ko dagg wala kenn ci ñoom loo xam ne léeg-léeg day dem ba jur sax noonu te am na yoo xam ne fi muy delluwaat di ci ëpp mooy ñàkk bokk euh, ni nga xam ne moom lañ leen yare ñàkk bokk culture ci diggante ñaar ñiy dencante ak gis-gis tamit ndax mbir yi tam du ne nii laa gisee rek ñépp noonu lañ war a gisee bokk na ba tey ci yi sabab jafe-jafe yi te amaana mënuñu jeexal lépp mooy assabat wa adamu taxyir wal ictimad ala al routine al yawmiyi al qaatili lil ibdaa aw al qaabili lil ibdaa al qaatili lil ibdaa maanaam sax rek ci benn mbir amul changement dëgër rek ci benn doxalin boo xam ne daal bis bu ne daal ni ñaan bis bu ne rek ceebu jën bu dee lekk yi waaye bis bu nekk rek lu weex bis bu nekk rek maanaam doxalin boo xam ne amul maanaam day dem ba du nit ki du du am cawarte day mujj rey sax li nga xam ne moo nekk ci doomu aadama ci bëgg di soppi ci bëgg di bees di bëgg di di mel yenn melokaan yi euh, dund boo xam ne ñaar ñi ko séq amaana kenn ci ñoom moom dafa jàpp ne bis bu ne nii rek la war a doxee day dem ba loolu tamit ñàkk am soppeeku changement boobu eeru kër gi du am dara lu ciy soppeeku ci ni ñuy dundee ci ni ñuy waxee ci ni ñuy doxalee loola tam bokk na ci li nga xam ne day dem ba ñaar ñi ko séq kenn ku nekk da ngay mujj li ñaan euh, sàppi sax day am te ànd ñaan ñiy dencante bis ku nekk war na am luñ ciy beesal bokk na ba tey li ko waral muy ihmaalul alaqaati alzawjiya wa adamu almusharakati alfaala bayna altarafayn muy sàggan ci relation bi dox ci diggante ñaari way dencante yi ñàkk am jàppalante bu dëgër ci diggante ñaar ñiy dencante nga xam ni amaana benn côté bi rek xañ na góor gi rek moom mooy def effort ci luy jegeel luy tax am gën ko sopp luy tax njaboot gi maanaam côté boobu rek ba ci sax biir néegu sëy bi wala xam ni jigéen ji rek mooy jéem mooy jéem daal nu muy daboo bànneexu jëkkëram di ko solul di ko toilettul di ko tegal lu neex di ko charmer di jéem mais góor gi moom loolu du ko yëg ba tey it in'idaamul jaazibiyya bayna tarafayni wa fuqdaani ragbatil jinsiya su ñu demee ba càggante am ba relation bi war a dox nga xam ne kenn ku ne amul looy charme ci sa moroom wala kenn ki moo koy def ki ci def di ka sàggane day dem ba loolu dafay ñàkk li doon xëcc nit ki ci moroomam ba mu war koo mën a xemmem di ko xaar ci rendez-vous ba ñu am ca biir néeg ba ca lal ba loolu day dem ba kenn maanaam ci ñoom daf koy ñàkk ndax gisul lu koy attiré gisul lu koy xëcc ci moroomam loolu nag léeg-léeg dañ koy gën xaar ci jigéen ñi waaye buñ jàpp ne jigéen ñi kese la dëgg la nag jigéen moom war na rekk su xëyee suba ba ngoon waxam doxinam colam euh, kàddoom ci lépp ci toggam ci demam ak ñëwam lépp na nekk luy attiré borom këram waaye nag góor gi tam war na yëg ne ca geneen wàll ga loolu tamit wareefam la beneen bi ci asbaab yi li ko waral mooy ziyadatul aaba il manziliya wa mashaqi tarbiya tarbiyatil awlaad mimma yuladu dugutan kasira muy dolleeku gu maanaam liggéeyu kër gi léeg-léeg diis bi muy diis ak métti bi muy métti loolu nag buñ koy wax jigéen ña rawatina ñi nga xam ne ñoom lañu féetale kër léeg-léeg mu diis lool ak yaruk njaboot ya liggéeyu kër ga yooyu nga xam ne mën naa yegg ci diisaay ci anam bu rëy rëy boo xam ni day tax matal yeneen yi day jafe ndax jigéen bi yendu ci waañ wi boole bàcc ba booleeg euh, ma nga boot doomam booleeg ya nga koy sant yow ku góor gi muy service su demee ba guddi jot mu jàpp ne moom noppalu la yebit nga ne ko soxla saa ngi ni taxaw te amoo ci benn yëg-yëgu ne kii kat war naa koo am ñeewante ak yërmande bu boobaa léeg-léeg yooyu mën na am lu mu jur da jàpp ne yow sa àq la rek da nga ko war a jot waaye sóoraale woo kii fi mu jaar ba yegg si fii nga war koo dalal ba même bu fekkee ne ànd ba day am di nga sóoraale coonoom waaye di nga sóoraale tam ban jamono mooy bi gën a placé pour ànd booba tam di mën a nekk ànd bu bu rafet ànd bu neex التي طب تموي الغير الزائدة والميل على الشك بين الطرفين مما يولد الصراعات والنزاعات في رانجو أب في رنك باحنا وعيبو أبي يخمنا فمي جنة جموعي نعو جورت تدي جنت نعني نكتل فيرو بين سمرم تابي جلو كيلور وعي فيرو نعو جورت لو لو لو لو سخنا وخ ولا مدفكو سخلات نعو تلنين yow ka dalika lu sa borom keur wax wala mu def ko sa xalaat ñaaw ci loolu yeb buñ koy top da fay andi ay fitna comme ni mu mën juré ay xëccoo ak werante ak i xulooyu ba sax nak man na yegg tam ci xex benen bi te mo ci moy al maylu ila nazati al muqarana bayna dhuruf al akharin wa halihim wa ma alayhi al usrah مما يخلق صراعا داخليا خاصة لدى الزوجة التي لديها متطلبات عديدة أو الزوجة المحبة للمظاهر والبهرجة وحب الذات أبل ak jëm lool ci di xool di comparer sa néegu sëy ak beneen néegu sëy léeg-léeg góor gi mën na koo def jàpp ne ah sama xarit diw day ni ko jabar jay toppatoo la jabar ja di ko toggal la muy doxalee xool di natt sa bopp ci ñeneen ak na ñu nekkee seen famille yow it ku jigéen ki léeg-léeg ngay xool diw day ni ko jëkkër ji lim koy utal ak situation yi mu am maanaam loolu nañ ko moytu ndax ku ne am na lu yàlla rëdd sa wërsëg te lu la yàlla xañ may na la leneen ca wet ga yooyu dafay jur ay werante yoo xam ne ci biir du du gaaw a dañ ndax bi ku ne nga gis nit koo war a ñee wala koo war a xool ne ah su ma meloon ni mel waaye yegg ci jàpp ne soo ko amul rek bu dee yow góor gi daa di ngay fitnaal sa soxna su dee yow jigéen gi tam dal di ngay fitnaal sa boroom kër faawu mu utal la ko faawu nga yegg ci loolu loolu day tax rawatina jigéen ji nga xam ne dafa bëgg dafa bëri ay bëgg-bëgg loo gis bëgg ko surtout jamono ji nga xam ne dafa ubbeeku waxuma rekk sax ngay génn di gis waaye sa sa téléphone ngay yor fu ne nga dugg lu ne nga xool bu sa jëkkër wàccee soxla bu ne nga diis ko ko ah lu ñu wane lu nekk nga bokk ca tontine bu ñu teg bu ne yaa nga ca te amaana man-man ba yeggul foofa wala am na ay priorité yu dul yooyu kon jigéen bi su fekkee ku bëgg feeñ la ku bëgg euh, xew la ku bëgg boppam ci bëgg bu ëpp googu nga xam ne du gis lu dul boppam yooyu dafay yàq amaana yi mbokk yi mooy yi gën a fés ci nga xam ne mën na yàq biir néegu sëy ak ànd bi nga xam ne ñaar ñi sëy dañ koy ànd xañ na ñu ñëw incha allah nag ci lor yi nga xam ne ah, yii nii dañ koy jur ci biir néegu sëy mel ni mbokk yi bu nu ñëwee nag ci adraarul muskilaat zawjiya muy lor yi nga xam ne dafay jóge ko ci biir néegu sëy bu fekkee ne problème yi juddu na ci ah, problème yi ñu wax yépp nag dafa am lu muy jur ci ay loraange ci biir famille bi ci société bi ba ci nit ñi muy njaboot gi waaye li gën a fës nag ci lor yi muy lor mooy ni muy tasaaree ni muy tasaare famille bi ni mu koy màbbee waaye ni mu koy yóbboo ci ak wàcc ak yàccaaraw ak it ñàkk te a jouer rôle ci biir société bi waaye du ca yem day jur diggante ñaari way dentante yi dogoo googu nga xam ne mën naa am mu ubbi nag bunt bu yaatoo yaatu ci seen diggante te warul woon am dara lu dox seen diggante mu tasaare ak mbañeel ak it jéppante ànd ak yëg gi kenn ku nekk ci ñoom di yëg ci ñoom ñaar ci xat-xat ak euh, ay jafe-jafe ci biir loolu nag càggante mën a am ndax kenn dootul fullaal moroomam dootoo xamati la la war ci biir néegu sëy ba te loola bu amee rek ci biir dund gi dangay daal di gis mu jeexital ci kenn ku ci nekk andi jeexital yu bon ci sa bakkan ci sa doxalin waaye mu tasaare ci sa xel sax sa xel tasaaroo nga ñàkk dal waaye nga ñàkk tamit doxalin bu matale ndax dafa am lu lay bouleverser lu lay luy wëlbati sa nekkin ndax li nga gën a li ëpp solo ci sa dund muy sa dundinu famille sa dindinu biir néegu sëy bu jaxasoo rek yow nga nekk ku normal dafay daal di jafe mbir mi nag mën na yegg sax nag ba jur yeneen yoo xam ne yu doy waar la yegg sax ba ci di def lu xaraam ci diggante ñaari way dencante yi ndax loolu yëpp li ko andi rek mooy kenn ku nekk ci ñoom ñaar dem nga ba toll foo xam ni léegi yow li la ñor rek mooy nu may def ba keneen ki du bég comme man mënatuma am mbégte comme mënatumaa féex daal nu may def moom it ba du féex bu boobaa nag nga dugg ci bàkkaar yoo xam ne mën nga koo wax wala nga def ko dem sax ba mooy yàlla da nga gis ñoo xam ne dañuy dem ba di ànd ak yeneen i jigéen ndax lañu la ñàkk ci seen kër waaye nga gis jigéen ñoo xam ne wala iyaas billah dañuy dem bay ànd ak yeneen góor ndax la nga xam ne moom la ñu ñàkk ci seen borom kër te loolu nag mooy li gën a yéesati mooy li gën a bon amaana ñu dégg bis bu nekk ay crime ay de jëf yoo xam ne ay bàkkaar yu rëy la yegg sax ci ray dem ba nit sax di faat doomam ndax mer bu mu mer te merewul lu dul borom këram walla jëkkëram mu mel ni kon problème yi nga xam ne dafay am ci biir néegu sëy am na daal ay jeexital yu bon a bon ak yu ñaaw a ñaaw yoo xam ne moom lay am waaye suñu ñëwee nag ba génn ci diggante ñaar ñiy sëy problème yi mu leen mën a amal da gis ne ba muy juraat ca diggante njaboot ga ndem ay doomam sax ah boobu nag moom moo gën a te doy waar ndax faaw mu am jeexital bu ñaaw ci xale yi nga gis leen ñu nekk ñoo xam ne duñu am benn dal ci seen jëmmu ak seen doxalin ñoom xale yi li ci ëpp dañuy beru dañuy am njàqare dañuy tiit ndax duñu yëg dara lu ñuy leen di amal comme kaaraange ndax la leen waroon a aar muy ay waajur ñoo ñëw aaruñ sax seen bopp ba mën a aar keneen loolu mën na tax xale yooyu jaar yoon woo xam ne du yoon wu baax yoon woo xam ne moom la leen seytaane rëddal ñu jàpp ne mën nañoo noppaloo foofu walla mën nañ faa euh, féexe wala mën nañ faa amee jàmm loolu tam dafay nekk loo xam ni loraange googu xale ya di loru dafay yegg ci bu parents yi lañuy jëflante ci xeex ci xuloo ci bañeelante dem ba nuru na ay noon lañ suñ koy def muy nekk ci kanamu xale yi ñu ci teg seen bët léeg-léeg dafay nekk loo xam ne dafay wëlbatiku doon loraange ci xale yi yàq seen xel waaye itam yàqal leen bu dee dañuy jàng mu jeexital ci résultat yi ñuy am di jeexital ca nañ ñuy nekkeek seeni moroom ndax yëg benn faiblesse ak benn doyadi waaye tamit mën nañ wax ne sax nag problème daal ci biir néegu sëy mën nañ ne mooy paaka bi gën a ñaw di mën a rendi suñuy njaboot reyin woo xam ne du ànd ak benn yërmande te du am dara lu muy bàyyi kon lor yi dafa bari lool waaye nag comme ni ngeen xamee lor yi nga xam ne kenn ku ci nekk ci ñun buñ la ko doon tudd tuddloo doo ko jeexal ci biir loolu kon lañuy ñëwee ci nag al masha al mushkilat zawjiya wa xululuha fi l muy problème yi nag comme xam nañ ne problème yaa ngi fi am na fu mu sosoo ni ko noonu am na loraange yu muy lore te kenn umpalewu ko noonu la ñu war a nag jógee nag ci ay solution waaye nag solution yi moom mënul bàyyeekoo lu du ci sunu diine mu mel ni kon mënul ñàkk incha allah ñu taxaw taxaw ci li jiitu mooy xam ni xéewalu sëy xéewal la goo xam ne xéewal gu màgg la borom bi moo ñu ko wërsëgalal ñun nit ndax nag mboolem mbindeef yi borom bi subhanahu wa bind teraanga jim ci defal doomu aadama mooy relation bi nga xam ne moo war a dox ci diggante góor ak jigéen pour ñuy fajante bànneex daf ci dugal ay àq dugal ci ay wareef ba kenn ku ne mën a bàyyi xel moroom ma waaye mu nekk ànd bu neex boo xam ne dafay jur ay njariñ ca njaboot ga jur ko ci biir famille bi waaye jur ko ci société bi moo tax borom bi subhanahu wa taala mu wax ne wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dalika la ayatin li qawmin yatafakkarun borom bi dafa bokk moom ci ay kéemtaanam mu sàkk sàkk lu mel ni nit ñuy peer di ànd nuroo lool te duñu benn tam muy góor ak jigéen ñu doon peer yàlla ne ma def nag ngeen di dalee ci ñoom maanaam góor ñi di noppaloo ci jigéen ñi waaye ba tey jigéen ñi di noppaloo ak dalale seen xel ci góor ñi moo tax mu ne wa jaala baynakum mawaddatan wa ma yàlla dafa def ci diggante seen ànd boobu bëggante ak yërëmante mbëggeel ak yërmande mooy liy suuxat néegu sëy bis bu fa dañee rek dara desatu fa borom bi nag nee na lii dafa nekk ci samay kéemtaan waaye ñeen ñi nga xam ne dañuy xalaat kon saa yoo xamee ne càggante am na ci biir néegu sëy rekk da ngay daal di gis ne xalaat sori na fa waaye ci biir loolu tam jaaduwul ñuy sàggane xéewal gi ci ay wuute ak xuloo déedéet xéewal gu mel nii di sëy xéewalu sëy ci biir famille xéewal gu tool noonu kenn ci ñun waru koo sàggane ndax ay xuloo ak jikko yoo xam ne jikko yu ñaaw la yuy yàq sëy kon kenn ku ne rek war nga sàmm relation boobu jigéen bi war na xam ne ah yiwu rëy rëy lay am bu màgg su fekkee ragal naa yàlla ci sama jëkkër taxawee li ma wàtti sama njaboot te xam ne àdduna nag mënuñoo mucc ci ay problème mënuñoo mucc ci ay wuute loolu doomu aadama gi la waaye nag du tere ma yëg ne sëy bii jaamu yàlla gu rëy la ci man te tuyaaba ju rëy laay jëlee ci lépp lu ma ci bàyyi xel ragal ci yàlla ci sama digganteeg sama jëkkër waaye sama digganteeg taxawaay bi may taxaw sama njaboot waaye mu war tamit ci bépp jabar ak bépp jëkkër ñu yëgandoo ñoom ñaar ci ne problème yi nga xam ne day nekk ci biir néegu sëy problème la yoo xam ne dafay andi faiblesse ci relation bi war a am ci famille bi te ñoom ñoo ko war a garanti ñoom ñaar kon mënul ñàkk kenn ku ci nekk muy jàpp ne problème bi kat bu ñëwee dañ ko war a régler nu mu gën a gaawee di ko jëllale comme ni nga xamee ne niir yi noonu lay gaawee seenu romb su fekkee ne ñu ngi ci jamonoy tàngaay buñ ci bàyyi sax xel mënul ñàkk kenn ku nekk nga fexe ba wóolu sa moroom confiance confiance dafa mënta ñàkk ci biir néegu sëy waaye fonk ak sàmmal kenn ku ne sàmmal moroom ma ay sëkkëreem ay mbóotam ci biir néegu sëy bi waaye tamit kenn ku nekk fonk moroom ma jox ko cëram buñ jàpp ne jigéen rek moo war a jox cër jëkkëram waaye jëkkër day jox cër jabaram waaye tamit kenn ku ne sàmm sa làmmiñ ci lépp loo xam ne mën naa ñaaw si ko génnee waxuma laa nag ngay yegg ci saaga wala xas wala wax joo xam ne yàlla gërëm ko noonu tam la waree ki nga xam ne mooy boroom kër gi di jëkkër ji mu rafetal ni muy dundee mu rafetal bu baax ni muy dundee ak soxnaam def ko ci ni anam ba nga xam ne mooy ba gën mu xam ni yàlla may na ko ci biir néegu sëy bi moom jabar ji ay àq yu mu am te jëkkëram moo ko yoreel jëkkër ji war na xam loolu ak yooyu muy dépense bi manam dund gi mu ko war a dundal yor gi mu ko war a yor sëy bi ci lal bi àq la du góor gi rek moo ko moom ba yu ko neexee fu ko neexee rek foofu lay amee waaye muñ goo xam ni muñalante lay doon sax nag waaye dangoo dékku kenn ku ci nekk lay nekk ci sa moroom ci ay faiblesse loolu bu ko góor gi xamee ne lii lu ma warlul la ci sama soxna war naa ko jox dépense war naa ànd ak moom ci lal bi war naa ko muñal waaye tamit war naa koo dékkul ay defoom loolu bu ko xamee lu njëkk muy sàkku ci soxnaam pour mu jox ko moom ay àqam ci déggal ko ci toppatoo ko ci yoral ko ak njabootam sàmmal ko alalam yooyu jigéen ji yeyo yelloo maanaam warloo warloo ak borom këram bala koy góor di sàkku ci borom soxnaam war naa xam ni moom moo njëkk a am ay wareef yu tegu ci kawam kon du war a ñàkk mu xam ne moom moomu góor gi nag moom mooy directeur société bii di famille moo yore kilifteef gi kilifteef gi nga xam ne dafa war fexe lépp lu koy doxal ba mu mën a jaar yoon mu dëppale ko li ko yàlla sant bañ koo dëppaleek li neex bakkanam ak gis-gisunu boppam kese loolu nag bu fekkee góor gi xam na ko ba taxawee ko kon benn tànk bu dëgër taxaw na ci regle problème bi nga xam ne mooy problème bu mën a nekk ci biir néegu sëy waaye nag it beneen tànk ba des mooy bu jigéen ba kon wareef la tam ci jigéen ji mu sàmm mu sàmm yàlla ci jëkkëram bàyyi xel yàlla ci sëyam bàyyi xel yàlla ci borom këram mu jàpp ne moom moomu jigéen ji mooy ki mën a jàppale borom këram ba sax jaamu yàllaam moom borom këram mën a mat ndax nag yonent bi sallallahu alayhi wa daf ñu jàngal xamal ñu ne addunya mataa wa xayru mataiha almaratu saliha àdduna yëpp xéewal la ak bànneex waaye xewal yeeg bànneex yi bi ci gën te ëpp ci solo mooy jigéen ju baax dëgg la moos ku yàlla may jigéen ju baax yow ku góor xamal ne sa genn wàll diine ah matal nga ko wala boog yomb na dina yomb ci yow kon nga mën a ragal yàlla ci gen wàll gi des nga xam yow ko jigéen ki ne yow yaa mën a jàppale sa borom kër ba dundam mën a nekk dund bu taaru ba fu génnee ay moromam ay nawleem fonk ko ndax góor kat lu mu am am cër lu mu am am dayo su ko ji boo soxnaam sàgganee ruubaa jaambur duñ ko mën a fonk kon day daal di war mu yëg moom ku jigéen ki rôle ci ne moom moo war a doon noflaay bi moo war a doon daluwaay bi ngir borom këram moo war a sàmm secret borom këram moo war a sàmmal boroom këram boppam te xam ne jigéen nu mu mel rek ñu ne jëkkër ja waaye moo war moom ku jigéen ki tam yenu li nekk di ay sas borom këram soxlawoo ko mu jàppale ko ca waaye mu xam ne dafa war a dund mook boroom këram dundin woo xam ne dundin la ci lu neex ak lu naqari bañ a nekk égoïste koo xam ne boppam rek su neexee jàmm dina jooy waaye bu jafe-jafe amee rek mu daal di mel ni moom bokk ca comme ni nga xamee ne mënul ñàkk su fekkee ne wuute am na boo juddoo ci borom kër gi ñu waxtaane ko waaye bu ñu koy waxtaanee na njaboot gi sori bu ñu yëg lu xew na nekk waxtaanu biir nekk bu kenn xam ne problème am na ci diggante sama baay ak sama yaay bu kenn yëg ne ah ñun kat ñaari kilifa yi ci kër gi am na lu dox seen diggante waxuma laa nag ñuy jël njaboot ga di leen def ñuy yat wu ñuy xeexee nga xam ne léeg-léeg bu problème amee dañuy jël njaboot ba boole leen ca dugal leen ca ku neex di am fu muy far nañ ko moytu bu ñu bëggee régler problème yi ci biir fa euh, sëy bi nañu fexe ba njaboot gi buñ leen ci dugal buñ njëkk sax liy xew te loolu la alquran jàngal ñu ci àndin wu rafet bi boroom kër di ànd ak soxnaam muy àndin woo xam ne àndin wu jub la mu wax ne wa ashiruhunna bil maaruf ca suratu nisa waxaat ba tey ca suratu baqara ne euh, fa na bi maaruf na ngeen dund ak jigéen ñi dundin wu teey dundin wu rafet na ngeen leen téye téyin wu rafet te téye boobu ba mu koy wax sax ca ca fase la dem na ba ngeen tàqalikoo waaye du tax nga sànni ko du tax nga mel ni ko mësul woon a jëflanteek lu rafet déedéet téye ko téye bu rafet ba iddaam mat buy dem mu soog a dem kon problème yi nekk ci biir néegu sëy problème la yoo xam ni bu ñu bëggee koo régler solution yi nga xam ne moom lañu diine jox mooy ñu fexe tam ba xam ne boroom bi subhanahu wa dafa tere lor góor di ko teg soxnaam ndax lor ko bokk na ci xatal ko ci ni muy dëkkee xatal ko ci ni mu war a dundee ba nga xam ne moom day mel ni daanaka amu fi ben njariñ ndekam ki nga dem ba jàpp ne mënatoo dund ak mom la la yàlla ne la téye ko kon kañ ki nga xamne yaangi xamne tay ji man ngeena nek nekk ba tey mu ngi ci boom koko ro xatuñu ko motax ci suratu talaq borom bi subhanahu wa taala ne ki nga xamne dem na ba fase tàbbi idda bi ne ko téye ci kër gi te na rafet askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن yàlla ne na ngeen leen dëkkal fi nga xam ne moom ngeen dëkkee yéen bu ne naa ko rek na na dem ca pantere ba wala na na na condition ye moom xoolatuma ko déedéet fa ñu dëkkoon buñ fa génn te bu leen leen lor di leen xatal ngir ñu man ne fii xajatuma fi duma fi xaar sax buy jeex déedéet comme ñooñu lañ la mën a sàmmloo bu problème demee ba am ba tàqali ko rek des mu war a jël iddaam ñu ne la fonk ko téye ko te bu ko xatal waxuma laa ki nga xam ne nag mu ci biir buumu sëy kon solution bi islam andi ci sunu àndin loolu ci islam rek nga koy fekk duñ ko fonkee te bàyyi ko xel ah fase dina néew te problème mu sëy tam danañ ci mën a régler yu baree bari nga gis ci benn xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu wax istawsu bin nisaai xayran fa inna al mar'ata xuliqat min dilin awaja min dil min dil il awaj wa inna awaja ma fi dili ala yàlla daf ñu xamal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal ñu ko mooy ni nañu fonk jigéen ñi nañ leen bàyyi xel yonent bi moo ko dénkaane te bokk na ci la mujjee dénkaane mooy nañu bàyyi xel jigéen ñi ndax jigéen day yiw rek ak njekk moo jaadu ci nañuy doxaleek moom ndax na ko yàlla bindee tax jigéen yàlla daf ko bind ca faar ca fa gën dëng ca faar kon mu mel ni jigéenu mën nga wax ni képp koo xam ne bëgg nga dund ak moom faaw nga nekk ku xam nooy doxalee waaye faaw nga nekk tam koo xam ne danga pare pour jubbanti niki noonu tam jabar ji muy jigéen ji di soxna si war na fàttaliku bu baax di bàyyi xel palaasu borom këram di këram mu respecté ko màggal ko jigéen jëkkëram mooy ki gën a màgg ci moom mu gën a màgg baayam sax ci moom ndax loolu yàllaa ko jox cër boobu ndax kilifteef bi baay bi amoon lañu toxal jox ko borom kër gi kon war nga fonk sa borom kër ormaal ko yëkkati ko ndax fonk gën koy fonk ormaal ko yëkkati ko xamal ne sa bopp nga koy defal moo tax sunu yaay Aïcha an anha ni bi ñu laajee yonent bi sallallahu alayhi wa ci nit ñi kan la ci jigéen gën a war a mën a jox cër muy àqam def na ko boroom këram ayu nnaasi aadamu xaqan ala almarati qaala zawjuha kon jigéen bu xamee loolu ne jëkkëram mooy ki ëpp daraja ci moom moom kii mu war a gën a yëkkati ah bu boobaa kon du ko soofantal du ko doyadil kon mu mel nii pour régler problème yi nekk ci biir néegu sëy ci wàllu islaam dafay tegu ci ay base yu dëgër yoo xam ne la koy fonde mooy jëllale waaye kenn ku ne nangoo supporter moroomam waaye di fàttaliku rafet rafet ya bala ñuy xool ñaaw ñaaw ya di sàmm tam di ci sàmm yàlla ci biir ànd bi nga xam ne moom lañuy ànd ci biir néegu sëy mu mel ni lii war mooy kenn ku nekk ci ñaar ñiy dentante mu bañ a dugal nag ci seen diggante kenn bu ci wóolu sa yaay bu ci wóolu sa baay bu ci wóolu sa sa mag bu ci wóolu sa rakk sëy dafa xat biir néegu sëy ñaar ñi sëy rek ñoo ci xaj kon bul ubbi buntu kenn wala lenn su fekkee mënul ñàkk bu demee ba sëy bi toll foo xam ni faw am keneen ku ci dugg fexeel ba xool nag koo xam ne danga koy tànn de danga koy tànn te fa koy tànn ak na nga koy tànnee da koy teg ci critère ak baasu nit ku baax la ku sell la ku mën a defar la koo xam ne day doo yaakaar rek ngay am ci moom waaye da koo gis ci doxalinam ñu seede ko ci moom nga yëg ne kii day bu duggee ci say mbir da koy defar waaye du ko yàq loolu bu amee day tax problème bu dudd rekk defar ba day daal di yomb waaye tamit ñaar ñiy dencante nañu ittewoo toujours ci seen ànd bañ di jàmbat nañu moytu jàmbat te xam ni àndin wu rafet bi jàmbat da ko yàq amul benn noflaay bu nekk di sax bis bu ne ak jamono bu nekk su doon loolu doon am problème du am ci néegu sëy lépp doon loo xam ne lu féex la rekk jàmm la ak bànneex kon bu doon muccu benn néeg dana ci mucc kon néeg ak biir kër yonent bi sallallahu mucc ci mucc ci lool kër jullit ñi saxaaba yu baax yooyu ak seen jikko yu rafet ya ñu mucc ca kon nañu xam ne noflaay gi daal ci biir kër gi bu fekkee bëgg nañ ko ak biir néegu sëy yi nañu fexe ba sunu biir kër yi ñu taxawal fa yëpp di fa fàttaliku borom bi subhanahu wa taala di dundal topp ga ñu koy topp te jaarale ko ci njubug yonent bi sallallahu alayhi wa ba lépp lu ñëw ci sunu kanam rek ñu xam ne solution ba ak la koy rey foofu rek lañ ko mën a jëlee te bañ di ci roy ñi nga xam ne bokkuñoo ak ñoom diine bokkuñoo ak ñoom yëg-yëg bokkuñoo ak ñoom jubluwaay ñooñu day bu ñuy xool ci ñoom lu defaru ci sunu ànd du yomb rawatina biir néegu sëy sax ñoom xamuñu sëy andi intérêt lañu xool te sëy nag ak jaamu yàlla la jaamu yàlla la ci ku góor ki waaye jaamu yàlla la rawatina ci ku jigéen ki ndax su ko rafetalee nam ko war a rafetalee wala ñoom ñaar buñ ko rafetalee dañ ko war a rafetalee seen texee àdduna ak àllaaxira ca la nekk kon bokk ci mu mel nii ci biir lii dañuy yemale sunu kàddu di ñaan borom subhaanahu wa may ñu dégg ak topp waaye tamit ñuy dénk rek sunu bopp di dénkuwaat ñu delloo sunu yar ak suñuy teggin ci alquran ak sunna fexe ba sunu lépp ñu ciy dellu waaye fexe ba néegu sëy ji sunu ànd ñu xam ne goro ba jiitu mooy yàlla subhanahu wa taala ndax moo maye góor mën a bànneexu ci soxnaam moo maye jigéen mën a bànneexu ci borom këram kon yàlla moom nga xam ne moo tax kenn ku ci nekk say soxna lew la kenn ku nekk sa borom kër lew la ah kon nañ koy teewal ci sunu lépp ci sunu dundin di ci ragal yàlla balaa ngay jëf dara ci sa moroom xoolal ndax loola lu yàlla gërëm la ba noppi waaye bul jiital sa bakkan bul jiital sa xol waaye jiitalal lii di sa diine ci lépp loo xam ne yaa ngi koy jëf walla nga koy wax kon mbokk yi mu mel ni ci biir lii rek lañuy ñaan borom bi subhanahu wa taala may ñu dégg ak topp di ñaan borom bi jubale ñook li nga xam ne moom la ñu booleeg muy suñuy borom kër waaye tamit jubale ñu ak sunu njaboot ba ñu mën a dund ñun ñëpp ci famille boo xam ne day nekk famille bu gëm yàlla bu ragal borom bi subhanahu wa taala ndax ëllëg ñu bokk nekkaat ca biir aljanna nekkaat fa ay famille ndax nag ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla gëmoon yàlla di jaamu yàlla ci àdduna bi bu nu faatoo tam noonu la leen yàlla di boole waate ca biir aljanna ñu nekk fa di dund nekkaat fa famille diina amanu wattabaatuhum zuriyatahum bi iman alxaqna bihim zuriyatahum wa ma alatna min amalihim kon yàlla ci mbaaxam xam na ne famille mënta ñàkk mu ne kon nii ngeen di dundee ci biir àdduna bi bu ngeen ko rafetalee bisu penc tam noonu laa leen di dajaleewaat ngeen bokk di dund kon ci biir lii rek la ñuy yemale sunu kàddu naqul qawli hada wa nastaghfirullah li wa lakum wa li saa'ilil muslimin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu